lari jiin bismillaay njaay sutub maa ngi may soow te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaala yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari waaw salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal ah ma sant yàlla julli senante bi di ñaanal sama papa sama tante yal na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi parce kanam a kanam gërëm nag waa Caare Géej waaw waa Caare Géej aw ma seen fay waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax sant woo tamit waa Caalaan ñoo joor Falia Sow Basar Basul képp kuy jàppale Reug Reug maa ngi lay sant bu baax a baax di nuyu waa Mbeeleng gi tamit bu ma limee damay juum maa ngi lim ñëpp daal waa Reug Reug ñu gis la combat bi bi mu taxawee ak léegi mat na trois ans nga topp guy gi ne ko pour mu may la chance nga topp guy gi ne ko da ngeen war a daje topp nga ko fu ne fu guy gi nekk fekk nga ko fi xam nga ki nga jël ku ne ki nga jël xam nga ku baax a baax a baax xam nga ki jël xale yi nga xamante ni moom la ñoom la freiné waaw guy gi champion la amul naak ak champion mais xam nga adduna mooy li may wax nit ki bala ngeen a nit ki bal ngeen a laale maanaam il faut ngeen ñamantal par ngeen doog xam kan mo man sa morom mais dal man ma ngi ñaan yalla suñu borom may man dam ci barke Seydina mohammed dem setan nga guuy gi gis nga ni guuy gi combat bi da ko jaral. physiquement guuy gi dafa taxaw ba pare dafa indi xex bu metti te daf la bëgg indi xex waw waw lu mu entraîné mom na entraîné andak ay mbokam man andana ko a ciaré geej képp kuy jàppale Reug Reug ànd nag man waaw lu ci war daal loo xam ne tey jii bu ñu ko defee yàlla suñu borom may ñu ndam def nañ ko waaw yàlla suñu borom moo yor ay liyam maa ngi koy sant maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam ci parc Seydina moom Reug Reug maa ngi lay nuyu Reug Reug combat bi naka nga ko préparé parce que dañu gis ni physiquement tey da nga taxaw bi ci des mooy dañoo gis 100 pour cent bi yëpp jaare géej bi ñëpp génn kenn desul Khadim Ndiaye gis nañ ko fi Issa Pouye Coly Faye numéro 2 et tant d'autres bés bee ko laaj wala lan waaw ñooñu samay papa nañ ku su mel ni Khadim Ndiaye 1 Khadim Ndiaye 2 Ousmane Diop ah Issa Pouye Baye Mandione ah Ahmed Deme euh, ñun ñun ay lébu nañ te lébu dafa mën a sot te ñoom suñ suñuy papa nañ suñuy léb la tatagal nañ ñu def nañ def nañ daal lépp si ñun maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñoom conseil nañ ma quoi waaw. rek rek maa ngi lay nuyu. maa lay fay gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wa salaam di leen gërëm yéen ñaari di ñaan yàlla ngeen ko bëri si jàmm Reug Reug ñu gis ne caaroy géej yëpp tey ji li mu am ni tey mosu fee am est ñeme nga taxaw ak guy gi xeex ak moom parce que bu ñu waxee dañ ne Reug Reug bëre rek est ñeme nga taxaw ak guy xeex ak moom bagaar ak moom te ñu bàyyi bëree parce que non làmb moom làmb bëre dóor nañu wax mais ñun moom waaj nañ ànd ak suñuy mbokk dañuy ñaan rek yàlla suñu borom may ñu ndam mais li si def def nañ ko waaw ah. mayel Modou Anta ñëwal Modou Anta ci kaw mu dégg la nga fois moo njëkk nee na nee nañu guy gi mhm. guy gi ne dugg nga foofu cinq fois waaye boo njëkkee woon ci moom mhm. dootoo fa dugg waaw moom dogalul yàlla suñu borom nag mooy dogal ah, ah yaa may dégg na see bokk tamit te terewul damay bëreeg cinq ñooñ ndax yàlla suñu borom moo ko namm man kon wax joj amul lu mu ma si tontu quoi. waaw hmm. mo do tam. nee li nga yakkar amul neena li nga yakkar ak ñi and ak yow yakkar ne bu ngeen ko jappé mu jeex. Hmm. yéen ngi nax seen waaw kom ko mom guuy gi mom mo fonk combat bi man mi xalé na la wara a def bu ko fonké 10 fonk na ko 1000 waaw wa Thiaré dañ maa yónni yàkkamti ma bu démé nak ba ci bir géew bi lu way di wax rek nang ko wax waaw. Ah. dafa léegi nee na dafa la parce que moom nee na benn du may benn xale muy jaar ci kawam di jàll. waaw guy gi mënumaa corriger yaa may dégg yàlla bu namee ne dama koy daan ala kulli dama kay daan dégg nga ma mais moom du ma corriger voilà.

mais boobu ba léegi gars yi ñu ngi gaaw laa la gaaw. gars yi ñu ngi bu fekkee mën na maa tenir dafa nang bu fekkee moom mën na maa tenir combat bi day gaaw bu fekkee mënu maa nag yaa ma gën a xam. Hmm. ndox du bàyyi yoonam. gars yi nee nañu bu guy gi ñëwul yow da ngay dem. non fay fay ma. yaa may dégg man jëluma kii mag la wala man maa war a sama bis dama kaa respecté sama nu mu la expliqué man new ma fi naan kii mooy xale yaa war a dem non bu leeree rek ma dem bu leeree bu leerul ma taxaw ndax waa caare dañ maa yónni yàkkamti ma eh damay dégg gars yi ba léegi ñu lay laaj benn question waaye ba léegi tontu wuloo ci. ci bi ci xeex bi. gars yi dinañ xeex bi. dinañ ñeme taxaw jàkkaarloo ak guy gi face to ak moom waay waay sa papa ñu ne Khadim Ndiaye un kooku boo namul xeex yow si yow la la buuse ah eh. ma ne sa papa ñu ne Khadim Ndiaye kon namuñu ay xeex. xeex fii la buujoo par sëñ Bamba waaw. combat bi fan nga ko préparé. fu ma ko préparé xanaa caaray laa ko préparé waaw caaray laa ko préparé ànd ak samay mbokk waaw. lan ngay yóbbante guy gi yan kaddu ngay yóbbante guy gi. dama koy ñaanal jàmm ñaanal ka ak ay supporter wér ba jour ba ñu ñëw ñu feesal stade del yàlla suñu borom may ma ndam dem sama yoon. non violence. waaw ñun moom ñun ay lébu ñun moom xamuñu waaw. waaw moom laa la wax dañ kaa fay fay ma millions yi ñu ko fay man la moom lañ ma fay amul xale moo war a def si biis ba biis ba daal lu mu leer lu mu laaj ma def ko bu laajee taxaw ma taxaw bu laajee dox si koom ma dox si koom du ma ko daan ko dem voilà waaw waaw li olof di ay di wax ku la jiit si léegi lenn moo lay wax fi nga toogee defe naa foofu laa bëri giri waaw maa ngi maa ngi koy wax mu ñëw waaw. non amul sens amul sens dañ ko fay fay ma yaa may dégg mayuma sens làmb moo ñu boole moom dégg nga ko ci biir communiqué la kii boo ko jëlul ren déwén boo ko jëlee day gën a métti fi mu koy jël nag moo gën a métti fuuf moo gën a bon ndax rërëg mi xam nga maa ngi wax benn kalam mais bàyyi woo leen si xel kalam naax indiwaat muy maanaam gis nga uppa ñuy dem géej ñuy dem géej ñoo xam loolu sama gars yi ah waa Thiaré lébu yi ñoo xam loolu lan mooy bu ndaw mooy xale bu ndaw bi as léegi pour déglu ma fii pour moom maanaam uppa bi lu mu def ba xëccu day xëccu naram mag lu taxaw si kanamam rek da kay fekkaat far fa doy am naram mag noonu la mel ma guy par force dama yem naram mag. mais mais Thiel ou pas. mais Reug Reug Reug Reug Reug Reug dama ànd ak Reug ñu ñëw fekk la fii Caaroy Géej ñu ñëw fekk la Caaroy Géej nga taal gaal gi. yóbbu ñu ba ci biir géej gi teg ñu ci benn gaalu maare saxaar. boobu Reug Reug rek nga soxla. Reug Reug ne du bëri ak yow. guy gi guy du bëri ak yow. Mhm. nga ne ma bis bu ma guy gi jëlee. dinaa ko duma. waaw dinaa ko daan. Mhm. mais wax boobu tey. Mhm. dafa mel ni dañ nga cee génn ndax ba bële ñu la koy laaj mais nangu woo cee wax. no du si génn ndax man man ne lébu ma wax di si tell ginnaaw bu bu fekkee mën na maa tenir laa la wax dina neex dina yëngu xaw ma nag ma dóor mu sàngooy loxoom ñëw songu ma waaw leer naa tontu naa la voilà. waaw jiitu ñëwoon. ñaari minutes. Hmm. Ah, hmm. ah, hmm. waaw dañ loolu moom amul li ñu ciy wax mais nañ bàyyi ba bis rek. nañ bàyyi ba bis ba allah lépp dina le yow ah attends ma ñëw. mais mais kii nee na ma ma ñëw. xam nga tey la. man làmb la làmb nañuy def. du ñu bàyyi dara làmb lu mu ñu jaralul amul sunu àdduna lu mu laaj pour am victoire dañ koy def si kàttanu sunu borom waaw. ma jël ko bone bi téye leen ko dara. na seetaan loolu yàgg na ci ci wax ndax man loolu dootu ma si wax quoi waaw ndax man moom wax naa ko ba pare pare naa si amul leen lu ma si wax gis nga liñ fi wax yëpp bëri combat bi yàgg na taxaw trois ans ngi nii liñ fi wax lépp pour jaay combat bi la le jour ji ñaata cinq jours xaw ma quatre jours. kon jaratul nekk fi di wax wax ju bëri. xam nga loolu expliqué. waaw dañuy ñaan yàlla sunu borom ba su bis ba rek yàlla suñu borom may ñu ndam. si Guy gi nee na bis bu ko Reug Reug daanee. Mhm. mu dem nekk yëngu est-ce que wax jooju ci tëdd non loolu du ma si wax xam nga du ma si wax xëy na moom euh, li ma lay wax mooy maanaam li bëy li bëy lekk ba bay cëppi cëppi nag lekk na miig. dégg ma. voilà combat moom lu ko jaralee 1000 jaral na ma 3000 ndax maa ko gën a soxla combat bi. Ah, man. Eh, Pël Pël lu mu wax waaw. guy gi nee bi mu ciy waaw danañ jàpp ay moromam duma leen daan de. waaw man dama am temps arrêt rek bu ma waree dem damay dem bu ma waree toog damay toog et eh, loolu la quoi mais man wóor na mu fu ma ko jàpp.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 bari te nay bëree bari nay bëree bari te laa ñaari yoon